sant yàlla bu baax a baax a baax alhamdulilah rabil alamin résultat yi génn nañu président Macky Sall gagné na largement cinquante pour cent donc loolu dañ ciy sant yàlla parce que ñi mu doon jonganteel tamit ñooñu tamit ay mbër lañu mais quand même à l'arrivée moom moo gagné et par rapport à ça ñu ngi koy gërëm di ko sant di ko jaajëfal bu baax di ko féliciter bu baax a baax a baax fii au niveau de Tambacounda waa JLD ñi nga xam ne man maa leen jiite les jeunes leaders liggéey nañu liggéey bu rafet ci biir campagne électorale bi am na ay euh, daay yi nga xam ne fay nañ ko ci biir commune bu Missira plus précisément à Tessan à Seno ñi nga xam ne ñoom dañu menacé woon dañuy voter sanction parce que gisuñu seen bopp ci liggéey bi responsable APR yi di liggéey foofu mais à l'arrivée bi ñu jotee ci xibaar bi dem nañu waxtaan ak ñoom dalal seen xel à l'arrivée voté nañu massivement pour le président Macky donc loolu sant yàlla bu baax a baax la fii ci biir commune Tambacounda élection yële passé 56 lañ fi amoon élection yi am nañu 70 am na liggéey bu mag a mag bi mu ci def